mbokk yi asalaamaaleykum yéen ñi di déglu seen télévision prestige tv benn yëgle ngi ni bu ñu leen di indil kii benn xale bu góor bu réer la tudd Pape Demba Fall ñu koy wooye Babacar mu am fukki at ak ñeent nekkoon daara Oustaz Loum ci parcelle Assainies unité 1 ci wetu polisu parcelle Assainies jóge na nag kër way juróom ñu ngi koy wër depuis le 4 août 2019 dafa waroon dem vacances Ross Béthio boobu ba léegi nag ay way juróom ñu ngi koy wër képp ko gis nag nga woote ku ñuy wax Adja Soxna Ndiaye nekk fële ci lew na wala nga woo faatu Badiane nekk ci cité Lamy di bàjjanam wala nga woo Aline Fall di baayam nekk ci lew na wala Souleymane Balde nekk ci Mbour 2 wala na Badiane nekk terrain Walidane ca Mbour 2 képp ku gis xale bi nag mun nga woote ci 77 170 36 65 di numéro Adja Soxna Ndiaye nekk quartier na wala nga woote ci 77. 755 05 52 di numéro baayam tudd Alioune Fall wala nga woote ci 77 691 95 75 di numéro Fatou Badiane di bàjjanam yàlla na ko yàlla leeral